Sénégal mbokki diaspora bi maa ngi leen di nuyu yéen téléspectateur El Vision Média maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di gërëm aussi di leen sant di leen wax ni seen émission nanu ci wax moom la ñuy démarré waat tey nag ñu ngi indi woon tey comme thème lu ñu war a waxtaanee mooy ci wàllum technologie wàllum réseaux sociaux yi waaye li ci waxtaan bi li ci ëpp ci whatsapp bi la jëm li ëpp ci waxtaan bi ci whatsapp bi la jëm Facebook bi am na ci am na ci wàll waaye whatsapp bi daf cee gën a yaatu waaye lépp day commencé waat ci suñu biir kër yi rek parce que man li may wax chaque jour mooy man kër yi ñoo ma ñor nit ñi sénégalais yi parce que sénégalais yi ñoo yor portable yi sénégalais yi ñooy télécharger seen téléphone seeni réseaux sociaux muy whatsapp wala muy leneen kon sénégalais yi ñoo ma ñor sénégalais yi nan lañ war a utiliser téléphone jamono juñ toll nii téléphone mu ngi ñuy yàq jamono juñ toll nii ñu ngi seetaan suñu bopp ñu ngi seetaan suñu bopp téléphone di ñu yóbbu foo xamante ni nii suñu maam xamuñu ko woon. suñu yaay xamuñu ko woon suñuy pàpp xamuñu ko woon li xew ci dëkk bi léegi ñaaw na ñaaw na ba fu ñaaw yam maa ngi commencé ci suñu jigéen yi suñu sër yi suñu jarbaat lañu suñuy rakk yu jigéen lañ ak suñuy mag yu jigéen am na ci sax suñuy tante wala suñu yaay ay doomu aadama yoo xamante ni ñoo leen gën a conscient gën leen a xam li xew ñoom ñoo leen di filmeloo seen bopp di leen fotoloo seen bopp ci whatsapp bi neneen lañ ko waroon utiliser mais imagine toi benn sénégalais bu nekk Europe am fii corom boo xamante ni moom lay génnal amul lenn lu mu koy dikk lu dul téléphone la koy dikk wala dinaa la yóbbu wala dinaa la takk bu weesoo loolu fotol envoyé ma vidéol envoyé mais est-ce que loolu ban satisfaction la war a am ci waa ji est-ce que yow sama jigéen yow mi nga xamante ni yow yaay fotow yónnee ko waa ji nga xam daa nekk Europe wala sax ki nekk Sénégal fii est-ce que yaakaar nga ni kooku dina la takk parce que ki nga fotowu yónnee ko yaakaar na ni yow di nga fotowu jox keneen dama leen di jox benn exemple bu ndaw ci photo ci whatsapp yónnee mu ngi mel ni ay jamono ñuy wax xale bu jigéen bu téye ndawam góor ñëw doxaan la xam la su la xamee dañuy wax ni du la jox cër su la xamee du la takk parce que ñam na la ba pare ngeen baal ma ci kàddu gi noonu la demee ci whatsapp bi xale bu góor bu la ci wax photo wul yónnee ma ko wala tubaab bu la ci wax photo wul yónnee ma ko xamal ni mu ngi lay jaay xamal ni yow xale mais sénégalais yi nga xamante ne ñoo nekk Europe doon benn groupe nag parce que waxtaan bi defoon naa ko am ñu participer doon benn groupe ut sénégal Sénégal di leen dig lu nekk portable di leen dig xaalis di leen photowuloo di leen vidéowuloo après ñoom ci seen jëmmi bopp ñoom ñoo koy wonewaat ci seen exemple laa si joxe am ci koo dafa groupe boobu dem na indil ko moom photo rakam won lan mais loolu ni la parce que sa rak boo bokkal ak parce que encore une fois dimbali leen seen dimbali seen xam ni sénégalais dafa am valeur te valeur yooyu li ngeen di def bokku ci summeeku ba mel ni la sa ndey jure woon photo yónnee ko góor d'accordu ma même su fekkee ni ne sa jëkkër moo la koy sant d'accordu ma si donte am na ñoo xamante ne ñu ngi naan bu ko sa jëkkër sant dara nekku si mais sa jëkkër nan lay voyager nekk Europe wala mu nekk feneen ci Afrique ni la photo wul yónnee ma mais xel xel kese la yow nga photo wu yónnee ko moom mu photo wu yónnee la sa xel dem ci lim la yónnee xelam dem ci li nga ko yónnee soo paree est-ce que doo ko uti ji est-ce que moom su paree ci photo bi du ko uti ji loolu yëpp jar na sóoraale kon mbokki Sénégal nañ leen yeewu ci réseaux sociaux yi tubaab bi nga xam da koo defar li ci baax moom mu ngi ko jëf mu ngi koy jëfandikoo ñun aussi war nañ koo mën a jëfandikoo ci lu ci baax parce que WhatsApp bi di nga ci jaay sa produit di ci communique mu gën a yomb ci yow mais li ci gën a bon ñun sénégalais yi moom la ñu jël yaakaar ndayale ko suñu bopp te nekkul lu baax bërki de moo njaay jàpp magum jëm boo xamante ne ni pense nañ effectivement moom fautif la mais xale yu jigéen yi fautif lañ parents ay parce que sa doom nga bàyyi portable bu cher may ko day crédit réseaux sociaux bu nekk musuloo ko contrôler ba nga xëy muy wax ak di photo di yónnee baayam te nga ne yaa sa doom sa di di 10 000 francs après sa doom boobu moom en personne ni da doon jéem a teg bi dir 70 000 francs dajeeg moom cité ba la wax cité mixa affaire bu ñaaw dañ ci wax télé yu bari wax nañ ci radio yu bari wax nañ ci mais duñu ñu jug di si wax pour yee suñu rakk yi yee suñu jarbaat yi parents yi dé leen surveiller seen portable doom yi xale même bu amee 25 ans c'est pas parce que majeur na ñun sénégalais dépendre ci nit ki majeur na dama koy bàyyi ak boppam bu dee Europe la boo majeuree sa bàyyi mën na laa kër gi mais fii da ngay am 30 ans dëkk ak sa papa kon war ngeen a mën a contrôler seen i doom di surveiller seen portable doom di leen conseiller di leen conseiller di xamal portable la pour nga ci wala pour nga communiquer pour jouer mais bu ci def bon parce que lu bon lo ci def bu la lay la xaar ndax réseaux sociaux yi nga gis yépp dañoo am un serveur vocal am seen cerveau lépp lu ñu envoyé man vidéo wala photo ma supprimer ko nga supprimer ko mu ngi des ci un jour viendra Europe mën Afrique de utiliser photo Amérique mën naa mere mere Afrique de utiliser photo yooyu on ne sait mun na sax fuite sax mun na am bu fuite amee lépp tas kon nan defaraat jikko yi te wàññi ni ñuy utiliser téléphones yi xool li nga xamante ne moo ci gën ñu di ko def li nga xamante ni baaxul ñu bàyyi ko su meekul photo wu daal man d'accord ma ci. bu nekkee sa jëkkër ak bu nekku sa jëkkër laa si yemale parce que man su may génn ak xale bu jigéen mais su ma fotowul ma envoyé la photo normal nii soo ma nee fa su photo wu ma ne la eh, soo bëggee gis sama yaramu neen takk ma. soo ma takkul mënuloo gis sama yaramu neen wala nga nekk xale bu jigéen ànd ak moom ci auberge yéen ñaar la ngeen di seq nga di ko filmer yàggul dara am na vidéo yu circulé xale bu jigéen bi waa ji moo koy filmer waa ji daram feeñul ay cëram rek ay feeñ mais xale bu jigéen bi kanamam feeñ na am na beneen boo xamante ne xale bu jigéen bi si boppam ñu ngi naan jëkkëram la ko yónnee mais mooy li may wax rek parce que moom dafa nekk ci biir néeg bi su meeku ba set tëdd ci lal bi naan fii laa xaar di ko woon n'importe comment léegi nag affaire yi tas na ci dëkk bi mais deuk bi vous na nan len ci wax nan len ci wax te wax ji dépendre ñun li ñuy wax ni lool kessé la ñu mën mais yeen parents yi su ngeen ko ça un mois wala 15 jours wala une semaine wala sa doom mu ñëw wala bu ko wo bet ko ci biir indi téléphone bi su nga ni ko dindil bu nga vérifier lu fa bon nga ci biir salle bi wax ak mom wala nga pinu ko nang portable am su féké dara def fa lu bon nga gën xamal ko ni la continuer bu fekkee lii rek ngay def lépp loo bëgg dinaa la ko defal xale dañ koy naxtaan dañuy waxtaan ak moom waaye bàyyi xale ni ko majeur nga wala 10 ans nga am magum jëmm nga jox ko portable bu cher naan sama doom bi moom dafa intelligent dafa intelligent intelligence boobu moo lay rey parce que bërki de moo njaay li xew fële kooku yaayam lan la wax rey nga ma lii nga may fayee moom moo jënd téléphone bu cher jox ko doomam doomam di ci fotowu di won moromu baayam ba doomam dugal góor dugal góor ci biir auberge ñu bett ko fa am na ñeneen ñoo xamante ne dañuy toog li ñuy defal ku góor ki yëpp ku góor ki da koy filmer mais loolu ñaaw na mais ñun góor ñi tamit ñun góor ñi nañ delloo suñu xel te xam ne jigéen ñi ñuy manipuler suñuy jigéen lañ amu ci kenn ku bëgg ñu manipuler sa amu ci kenn ku bëgg ñu manipuler sa jarbaat bi nga bokkal sa yaay sa papa manipuler wu ko woon ngeen baal ma ci kàddu gi mais ñun ni suñu papa yi téye woon suñu yaay yi pour pourquoi mënuñu koo jàppee suñu jigéen yi man su ma génnee ci mbedd mi pour man képp ku ma gis ngay jigéen sama rakk nga wala sama jarbaat nga wala sama yaay nga tey duma la naree def loolu bon damay xalaat est ce que man lii bëgg naa ko ko defloo sama doom est ce que bëgg ko ko defloo sama rakk kon duma la ko defloo góor ñi nan delloo suñu xel te xam ne àdduna yamul ci tey avant whatsapp dañ doon dund whatsapp ñëw na ñu ngi dund après whatsapp dañuy dund yeneen day ñëw mais nañu fexe ba dund ci ñaaw àdduna bi jeex na ba pare nañu rafetal Sénégal ñun ñoo ko moom ñun jeunesse bi ñu naan génération bi dafa yàqu génération bi dafa yàqu te génération bu yàqu boobu koo ci toogal di waxtaan mu wax la wax yu baax mu wax la loo xamante ne nii da nga naan kii fan la ko xamee par rapport ak comportement am par rapport ak ni mel société bi kon lan la lan mooy suñu problème toppandoo tubaab yi rek est-ce que dañoo war a nekk fii di toppandoo tubaab bi ba sànq suñu bopp parce que lii ñuy def nii lu ci ëpp suñu njaboot gi lay répercuté waat xale bu ndaw 10 ans yor téléphone ñun bi ñuy nekk xale amuñu ko woon sañuñu ko woon xëy na technologie moo yegg foofu mais waxuñu kenn bul jënd sa doom téléphone mais soo jëndalee sa doom téléphone xamal ko téléphone boobu lan moo tax nga jëndal ko ko xamal ko téléphone bi ban njariñ la am ak lan moo ko ci mën a yàq mu moytu ko lan moo ko ci mën a defaru mu defaru ci pour que sa kër musiba bañ faa tàbb ñun ñëpp ñun ñii ñëpp ku ci nekk sa kër boo moytuwul musiba mu ngi fa musiba bi xam nga lan la sa doom mu ngi téye téléphone am nga tëdd bàyyi ko téléphone am mu nekk ci di manipuler di waxtaan ak ku nekk états uni wala muy waxtaan ak ku nekk Europe di toj dëkk bi te doo ko yëg yow tëdd nga nelaw nga yandoor nga bu paree chargé téléphone bu xëyee defaat ci saagam dem ànd ak moom jàngi su demee di ko wonante ak ay copinam loolu ñaaw na encore une fois suñu mbokk sénégalais yi nga xam yéen nekk Europe di nax xale yu jigéen yi nga xamante ne ay innocent lan xamuñu dara di leen yónneeloo ay photo bàyyi leen ko képp ku ngeen gis mu koy def nee lii rafetul parce que bërki de moo njaay gis naa fi boo xamante ne ni ab guinéen la moom mu ngi wone ay cëram naan ndaari ndaari loolu dong laa ci xam ak fii àlla mu leer la ni kooku bosam ni mu def ba ñëw Sénégal ñun suñu sénégalais yi seen i bos mu nga Côte d'Ivoire wala mu nga Guinée wala mu nga Congo loolu ñaaw na jigéenu sénégalais bu njëkk dañ koo joxoon cër maa ngi leen sant di leen gërëm di leen remercier yéen waa El Vision Média yéen téléspectateurs El Média seen président Lamine Gueye mu ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax encore une fois xalaat yi nag soxla nañu ko trop trop trop lu nit envoyé lepp lu dugg ci commentaire yi abonné ci site bi dinañ ci def thème ñu ci. kenn tamit sponsor soxla nañu ay jappalé parce que léegi ñuy def ni dañuy gorlu rek bëgg participer ci sunu réew nu muy donc képp koo xamante yor nga produit bu ko nga sponsoriser émission bari du Sénégal jëm kanam parce que ñun Sénégal dong moo ñor maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam.